bi ñu defee mbajaan def nañ fa ñaarat jugewaat fa demaat Dër Salaam yàggaat Dër Salaam lool nag ba bi sëñ bi nekkee xalifa lañ fa soog a jugewaat dikk sañcaat Touba mel na ne Touba moom sañc bi ñaari yoon la ndax kër gi moom dafa dafa bokkul fu mu ne rek waaye suusen suusen fi doon bay moom seen suuse la suusen fi jëkkan di bay ak biñ fi delsee moom suuf seen suuf see moom xëy na nag dëkk bi moom toppaat na yaakaar naa ne nag euh, ban delloo Daaru Salaam la sëñ bi soog a dugg nag ci comme nunu ko laat waxee lu ne baye nan ko waaye yaakaar naa ne mbay mi moom nag daal moom ci la ñu ak amam njariñ lol ci mbay ndax yaakar na ne lat bi mom mo fa jëkk yor perum nag biraana wa top ja ma topat ja te brana wa sax mako ko na a yore nag waaye mel na ne man booba ndox mi jafe na jafé go xamni gi yéme na ndax lat mi mako daan wëggal wén nagam bi ci dess lat gi ndax booba ndox mi daa jafe ba ma ñëwee sëñ bi ne ma ah jëndal naa laat gayee naag da yor yi ma ne ko ah sëñ bi ndox mi bëgg daal ma ci jaaxal ndax booba Darou Salaam moom pour nga naan rek sa gémmañ moom booba jafe na nga naan jafe na fa booba nga naan ba yàgg rek benn bis ma ñëw rek sëñ bi ma nag yooyu daal jël ko du ko yor du ko yor du ko yor du ko yor nag yi yokk ba nu ñew ba nu ñew mbaran mbaran du ko noonu ko señ bi waxe ñeent fukki dara ak ñet man ci la wacc ñet fukki ñet waaw jaan man arbet bee te ko moom tëkku ma at moom waaye mi mom man nako leral leeral me at bi ma wàccee ak moom ci kanamam la ak bi may jëwriñu yaakaar naa ne am na les yu sëñ mi defan ak sëñ mi yu naa ne am na ci moom denc naa ko bu nëgë sëñ bi it xam naa ne nit ku bëggoon jàbbaar la ndax moom xam naa ne ku sa tool daan set daal bu ñëwee tool yi dana ñëw fa yow. waaw bu jëwee bu wërsee tool yi dana ñëw dana dana dana ñëw fa yow. loolu moom suñ yox mi xam nañ dara xam naa ne daal ku sa daal set bu ñëwee dana ñëw fa yow lu mu yorit dana la ko sarax foo ñëwee dëgg yàlla ku musaa di bu lay joxe dala am yàlla jox xam naa ne kenn ku ànd nag moom itam moom wóor na ma ni da ngay rëccu ni man day lu ma teen a ngay wax waaye moom doo wax leneen waaw képp ku ànd nag sëñ bi moom réccu ngay def fii mu ne waaye defoo lu weesu réccu ndax da nga jàpp xam nga ni lu la yàlla wërsëgale lu nekk rek mënan nga ab lu ko ëpp ndax loo bëggalan sa bopp li la sëñ bi bëggalan moo ko gën ci yow loolu moom wóor nañ sëñ jeex miit moom dañ sëñ bi boole la dee leen ànd ak seexu naa lu mu leen wax na ngeen ko def maa ko sant sëñ Cheikhouna naa tam yàlla dogal na teg nan ko fi nan ko fa ci jafe-jafe loo xam ni lii day sunu sunu ci toppan nun ñi kenn mën a toog fi moom ndax yàgg nan fa mu soog a ñibbisi te itam xam nga mom serigne blad mom moom ku yar mom muy serigne mom do doo la gis kenn waye mom muñ musa de natti laat gay ngi ni serigne jëndal ko ab auto buñu nu xëyee dem toole par te fa ñuy liggéey mat na fu kilomètre buñu nu rek rek dañuy mab rek yéeg ci auto bi yéeg ba auto bi fim taxaw du fim mëna a jóge bu ko dee sëñ jeex fa am essence bi ban dem ñaar yoon toole ya manako ah waaw man na ko sëñ Cheikh di wàcc taxaw di ne ku meuna wacc na wacc lu ne ku mu yóbbu ñen ñi del si jël lu ñu soga nango wacc waye bu jëkk na dem sax nu nango wacc bokk na jalaat gi ñu bokk na jaar ñene bu bu yóbboo ñoña ba ñew delu si jël ci ko sunu demee tool yi di liggéey ba 2 heures bu nuy dellu si waat doona lay defaat mooy mujj ñëwaat ndax jàpp nañ ne boota bi ci xëccee jëkk a ñëw du dellu si bu ñëwee mu toog ci garab yi indi indi indi ñenn ñi dellu si jël si waaye musul ne kenn wàcce loto bi su laajee ñu ne ko essence bi mënut a def ñaari yoon dox na moo lay jiitu ji oto bi dana bu essence bi yamee ci wenn yoon ëttanul nit ñi. maanaam sëñ Cheikh day dox dem tool ya doxaat ñëw ndax nu ni kenn wàccel loolu nag ak baax la rek ak baax la ndax te xam naa ne bu ñu ca toppoon doon wàccee tam nëgë ni kon jotaay yëpp du mën a waaye nag xam naa ni waaye luñ ko luñ ko ca mësaa teg ci jafe-jafe mu ne ah sëñ bi daal noonu ñëpp noo ko bokk. noonu ñëpp suñ baay ndax comme noonu mu ko waxaat sëñ bi danaan wax ni man ki gën a doon gune ak ki ci gën a doon ponkal xàmmeewu ma ndax man kenn ku ci ne sa jëmmi baay rek laa la fay xool bu ko dee li lu daal waxit góor góor leen ci liggéey bi ak jaamu yàlla rek ca xam ne liggéey bi ak jaamu yàlla bu ngeen bu ngeen ci nekkee lu jugewul fa yàlla rek mëna lu leen dara loolu moom wax nañ ko ba tàyyi te am te kon lu jóge fa yàlla jëm ci yéen sax dana jaar ci man loolu sëñ bi wax nañu ko waxati na ko muy dégg kenn ku ci dem moom wóor na ma ni réccu daal la ñuy def réccu ni man de nii bu ma ko de xamee lu ma sonnan dinaa sonn lu ko daw man bi ma at may wàcc 43 daara yooyu booba man maas mbay daan na ma at mooma te ba na ma ñetti téeméeri bëri ko ak fanweer ak ñett. maas mbay. maas mbay daan na ma amoon na ñett téeméer ak ñeent fukk ak ñeent mam ñett téeméer ak fanweer ak ñett booba. yaakaar naa ne sëñ bi lépp bindat na ko. at boma man mas mbay moma ci daan waye yaakaar na ni musuñu musuñu jaa koo def santade sëñ bi sax fi mu ne am nañu naase nañ erreur ci defal di wan ne du baykat deug deug tax ñaka santade waye mom santane yi mom du ko du ko dafa melna ni dal daal ko won waaw waaw waaye bii mu ne ndax at mooma dañoo wax ni jal kob sunu gerte biñ ko jaloon dañ dañoo bi techniciens yi ñëwee dañoo wax ni kàbb gay coopérative kàbb gay képp moo moo moo moo moo daan jal jal bu toll nii Sénégal waaye nag léegi sataane yi xew na waaye sëñ bi moom nun rek la bëgg nuy liggéey bu jëmoon a sonal nit ñi daal bu nu ko mosaa liggéey nag ak lu mu bari bari bu bu buñ ko génnee asaka kenn ku ne mu ne la jëlal asaka ji yàlla jox la kenn ku ne yaag fii moom boo jàmbaaree dangeen ngeen di seet doo am lu bari rek boo boo yeewu seet doo bari waaye moom noonu lan ko daan mu ndax asaka ji moom xam naa ne yittee lan na ko lool moom ndax man xam na bis mu ñëw na sama tool tibb ci gerte gi nii xool ko ba noppi sa njeexam mii keroog yéen a ànd mu yor dees bu bees ful mu ñëw wër jal bi tibb xool li ba yàgg mu ne ma ana sa ah, ci doon bañ a de moo tax manoon nañ ne ba la ko ca xool la ni xanaa xamoo ne asaka moom lu mu gën a gaaw a tàggoog la ca des moo gën